Miles O'Jamdong, Sambe Pesi, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. DJ Pimps de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin assis 30 000, VIP prestige 50 000. Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader orange. déggoon nañ ni yaa ngi ci biir mu dox ci combat Papa Sow ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès est-ce que ñoo toftal yeneen combat yoo xamante ne Papa ak Siteu est-ce que ñu toftal yeneen combat yoo xamante ni bëgg koo def muy combat yu mag ci làmb bon pour l'instant dañu focus rek dañu concentré wu ci diggante Papa ak Siteu donc ci kanam tuuti dinañu génn déroulé bi wax suñu planning de communication invité leen yëpp ñëpp di ngeen ko yëg bu soobee yàlla ñu defar lépp ba mu rafet waaw. Père noo gisee làmb diggante daaw ak ren dafa mel ni làmb jéego bi mu tegoon ñu gisoon Pape Abdou Fall daaw heure bii tegoon na ay événement yu mag ba léegi gisatuñu loolu lu waral loolu da taxaw wala daa looy sóoraal. yooyu amal laaj ci Papa Sow ak Siteu léegi du événement mu mag. événement bu mag waaw mais bëgg nañ nga dolli ñu yeneen waaw. néew ma mais li ma lok nañ ko lijjanti ba pare doon jàll ci leneen booy. ah damay bañ a fot. boobu jàll na. non damay bañ mu fot. bañ a fot laay def. nañ leen ko góoto góoto rek bu ñu paree jibee bii dugg ji Sénégal jëm kanam. amateurs yi ñu ngi wax komba Papa euh, Sa Thiès ak Garga Mbossé mu gën nañ xam ba xam yaa ngi ci biir wala déet. nekkuma ci biir de yàlla xam na ko su nekk ni daal Papa Sow ak Siteu ci laa concentré wu ba pare door a seet leneen. jërëjëf Père jërëjëf. maa ngi lay fay jàmbaar. di am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yow ndax ba tey ñu ko bëgg waaye yàlla suñu borom dogalagu ko Assane ba léegi foo toll ci la waaw maa ngi lay bëggee di la nuyu baax di am mbégte ñu dajawaat fii dañuy ñaan yàlla ni ñu commencé si jàmm yàlla na tëjawaat saison bi doon si jàmm mais ñi ngi ñëw le 29 décembre incha allah diggante Tapha Mbeur Alioune Seye Junior Demba Thiaw Boy Jobaas Boy. Diomaye ak euh, Boy Bogal caatu montagne bébé mbay gu bébé guy muy cinq combat yoo xam ne dañ koy def jox ko amateur yi jaar fan daan jaar incha allah. Assane noo gisee làmb. làmb neex rek liggéey góorgóorlu fexe li bëgg Sénégal bëgg ko nekk si. incha allah ma la waxoon amateurs yi ñoo ma yónni ci yow di nga ma wax seen yóbbal. buñ la yónnee rek wax ma ma wax la. amateurs yi nee nañ bëgg nañ saa Thiès Garga Mbossé. waaw combat bu neex la. amateurs yi bëgg nañ ki nga xamante ne mooy ama neex ak euh, Modou Anta. combat la aussi combat bu neex. amateurs yi bëgg nañ ama ah, Modou Anta ak ki nga xamante ne mooy euh, nu mu tuddati Moussa Ndoye. Modou Anta Moussa Ndoye waaw combat la bëre woon nañ am na 9 ans léegi war nañ def revanche macha allah combat bu neex la. yooyu yan combat nga ci gën a bëgg am naa yu neex la yi nga wax fii yëpp moo yanu maana mais Moussa Ndoye Modou Anta neex na Garga Mbossé Sa Thiès neex na macha allah. ban combat nga ci gën a bàyyi xel. non yooyu mala wax ñaar yooyu bàyyi naa ci. <laughs> mu ngi noonu. Babou Mbaye États-Unis yow naan nit nga de yow mi naan wasaare lamb wasaare ko ne yow tey ko continent yëpp wasaare ko jërëjëf mu yor di ko tàgg woon naa am na léegi. ah Tidiane looy xaar waaw làmb rek làmb rek xam nga làmb moo doy waar fi mu ne nii mbër moo gisul rek xamal ne làmb moo ko tënk fi mu parce que làmb ji bu la. Tidiane Faye est-ce que ragal nañ ren nga bëre ah, maa ngi entraîné rek loolu dañ koy bàyyi si loxo yàlla waaye maa ngi entraîné incha allah mais Tidiane sa combat warul metti askan bi dañ laa bëgg bi dañ laa bëgg te làmb dafa am loo xamante ne defoon nga ko loo xamante ne lépp luñ nekk dëgg li ma wax man damay wax ne chaque jour man maa dugal sama bopp si man maa bëggal sama nekk làmb nekk ma mbër moo xam da ngay toll fee ne ñu ne kii mooy mbër mi day bëri rek nga ne kii mbër na kon loolu tax gars yi bëgg ma ko waa Tidiane ni nga defoon sagoir ba léegi yaa ngi koy mën xale jox naa ko booy <laughs> booy yëpp a ko mën léegi jërëjëf yaa fee jaral ma jaral moom laay def nii mooy bëre yàlla defal ma ndam da ngaa ñàkk ñortoon ni Jokal du ñëw ci làmb ji nga gis ko ci làmb ji loo yëg non non man xam naa ne dina ñëw parce que wax moom bu xasee ba génn rek bal la waaye bu dofee it nopp koy dégloo war a wér Jokal li mu wax ku nekk ko dégg dina xam ne kii dina ñëw waaye yàggatul yàggatul léegi léegi arbitre sifflé. lu ñuy séntu xeex wala bëre. séntu lépp kajek rajaxe lépp lépp am na. waaw waaw eh Mama Lamine xale baa ngi noonu. xam nga lamb ji tey lim la jaral. lamb ji waaw jaral na ma de. Ah, lamb ji daaw dañ ko jàppoon yàlla def nga am gàllankoor tey nga ñëw ci lamb ji. lan mooy daan lamb ji. lamb ji yàlla rek ñaan yàlla may ñu ndam ñun def lañ li ñu war a def nañ bàyyi yàlla mu def li mu war a xarañ gi ci yow ci bëre xarañ gi ci yow ci xeex lan ngay indi xeex wala bëre. lépp laa indi lamb

kontaan bu baax a baax a baax waaw yëg naa mbégte vraiment vraiment sawarte si bés bi. nga ñëw dugg si ci làmb ma gis xale yëpp nga xamante ay mbër la nga xamante ne du mbër lan salaam rek ak yëfu jeunesse parce que dañu di ay xale may xale ñu ngi ànd ànd bu rafet bokk génération di dimbalante di conseillante. keroog bi nga xamante ne ñaari mbër yi ñu ngi def face à gisuñu la waaye ki nga xamante moo ko ñëwoon kenn la ci Modou Lo ban affinité nga am ak Modou Lo ndax gis nañ xale yëpp ñu ngi solo. sama frère la nekk nit ku baax ku ko fréquenté wul mënoo ko xam dem ba maag moom seq ñu làmb lépp nañ seq sama genn wàll la kon donc yaakaar naa ni su bëggee Modou Lo Modou Lo bëgg ko man ma bëgg dembaa xaw ma bëgg Modou xam nga ni jeunesse bi dañ laa maa leen raw jaajëf jaajëf ñu jàppale ñu ñu liggéey mu jëm ci kanam. da nga tëggoon Mama Lamine ak Jokal mu échoué tey nga yënguwaat ko si stade bi tey loo yëg tey. waaw loolu sant yàlla dañoo jàpp ne Mama Lamine ak Jokal waruñu woon a bëyee daaw ren la ñu woon a bëyee ndax ren la ko suñu boom soob bi ñu ko tëggee tamit réccuñu ko ndax vraiment gis nañ fi innovation gis nañ fi lépp làmb gis nañ fi làmb ju yokku tey te am nañu yaakaar ne suba làmb ji waxta lu ñuy waxtaane lay nekk ndax vraiment lépp lu ñu war def nañ ko amateurs yi wuyu si nañ parce que bi wuyu si nañ mooy tamit li leen def nañ kon santaat nañ yàlla bu baax a sama xarit la sama frère la comme Michael Fora Michael moo ma wax euh, présenté Kéba ñu daje toog waxtaan vraiment ñu tuddee ko drapeau bi muy lu rafet di leen ñoom ñaar Kéba suñu frère la bi ñu léegi yaakaar na dem na 7 ans wala 8 ans yoo xam ne nii jàmm rek lañ si def di capturé muy suñu frère la suñu xarit kon dañ koy sant bu baax moom. kenn du mujj Fallou. noo def ak TFP yaa ngi tëgg démb tournoi daaw te mu nekk tournoi boo xamante ne askan bi ñëpp dañ cee kontaan tey nga tëgg Maama Lamine ak Jokal stade bi fees dell lan mooy sa secret. waaw mooy ma wax léegi rek suñu secret mooy Ndiaye production rek équipe bi ñooy liggéey ay Amdi Moustapha yi ay Mor Parcelle ñoom Malick Balde ñoom Xaarim Ndiaye ñoom sëñ Basirou Ndiaye ñoom ñëpp ñooy liggéey xale yi ñooy liggéey. man gisoo damaa xëy ñëw toog fee di seetaan rek ba lamb ji jeex ma wàcc kon dañuy sant équipe bi rek staff bi di gërëm tamit association promoteurs yi gis nañ seen taxawaay ci ñun taxawu nañu jàppale nañu am mbégte rek. DFP bi nga tëggoon daaw jéeg xaw ma daaw est-ce que pare nga pour tëggaat ko rek. waaw mooy ma wax léegi rek bu mbëri raisonnable lu mënta nekk amul nañ xaar mbëri raisonnable raisonnable lu raw DFP sax mën naa am. combat Jokal Mama Lamine daaw la woon ren est-ce euh, yaa ngi waajal combat yu mag yi nga xamante ne xamee woon na ko. waaw ñoo ñu ngi waxtaan ak ay champion yu ñu ngi waxtaan ak seen staff dañuy xaar accord de principe bu ñu ko amee rek incha allah ñu fisale ko mu jeex ñu ne ci leneen. noo gisee per per view ci làmb parce que dafa mel ni tey defoo ko wala dafa mel ni daal gisuñu la ci daal. waaw non per per bi c'est-à-dire ak événement yi soxla dafa am événement yoo xam ne jëlul per per view ngay jël télé bi def direct liggéey ci li nga war a liggéey rek mais suñu amee événement boobu ne jar na per per view dañuy def per per view. Fallou Ndiaye am ngaa sponsor. non amuñu sponsor mais wariwuñu ko it nag ndax sonaluñ kenn li ñu gëm mooy dañuy liggéey sponsor yi bu ñu santé ne ñu ngi liggéey arrangé na leen dinañ ñëw. ndax dañoo gis combat yu mel ni nga yi ngay décroché yëpp dafay metti ci promoteur mais dafa mel ni yëgaloo ko sax sa bopp. waaw non xam na niñ koy organisé ba nga xam te ne nii lépp luñ ci def dina génn naata duñ ci perte mais nag amuñu temps wu léegi dem ci ay bureau di toog di ñaan wala ñuy saraxu ay sponsor non tollatuñ foofu ñun fi ñu toll mooy xool li ñu yor xool suñu budget fi mu toll. ñu organiser ko rek bu ñu ñu sponsor intérêt bu ñu sponsor nag li ñuy def intéressé ko mu contacté ñu ñu waxtaan rek bu ñu déggoo incha allah di nga gisee sponsor ci ñun. noo gisee wasaare lamb ci lamb. waaw wasaare lamb macha allah surtout seen revue de presse bi surtout dama koy suivre dama koy déglu ndax dama ci abonné di leen ñaanal yàlla rek yéen a xam li na ko suñu boobam yokk yàlla na leen ko suñu boobam defal di leen ñaanal ne leen ngeen gën a góorgóorlu te jàpp rek allah am naa yaakaar ne ana ñaan nga jokkeel faj na nen Mama Lamine faj na nen arbitre bee ngi wax ak ñoom mu leen wax ni rek maa bi nangu ak lu mu bañ Mama Lamine réer Jokkel concentré wu na arbitre nee na arrière arrière ak Jokkel avertissement Mama Lamine daa am lu mu soppi Jokkel daa am lu mu ko sànni arbitre bi laaj na ay siisam pare nañ laaj premier décembre 2019 stade Iba Mar Diop Mama Lamine Jokel Ndiaye production indi fi mbokk yi Mama Lamine moo sol ngépp bàtt bi moo jiite tànk jàmm ja am xonk weex bi bleu bi nga jiite tànk ndijoor na Mama Lamine déglu na ko mu ngi dox moom Mama Lamine mu ngi dox ci kaw Jokal Mama Lamine léegi làmb Jokal Mama Lamine mu ngi dugul Jokal Mama Lamine mbaa dinañ xeex hey Mama Lamine dernière journée Bour Sine la mujjee daan Jokal na tànk ba xeex nañ ñoo xeex Mama Lamine Jokal ñoo ngay xeex éey làmb Mama Jokkel Jokkel a ci kawam ndànk rek Jokkel ci kawam ndànk rek Mama Lamine daa bëgg a dóor arrêté droit mbaa dóor mu daanu du am dóoraat na Jokkel ña xeex ña xeex ña Jokkel ña xeex Jokkel Mama daan na Jokkel Mama Lamine daan na Jokkel Mama Lamine daan na Jokal eh Mama Lamine daan na Jokal Mama Lamine daan na Jokal Adama Mama Lamine daan na Jokal Adama Mama Lamine daan na Jokal Mama Lamine gis combat mhm. ñu ko mhm. répété wuñ en fait répété wuñ dañoo rek teg sabar yi fecc andi wuñ fi woon lii moo ñu fi andi woon dañoo jàng ba mokkal nag mhm. tari mooñ ñu dese woon te yaakaar naa ni tari nañ jokkal nawle la mbër la champion la. mënu ma ko yàlla moo may ndam maa ngi ñaan bu beneen yoonatee bu amee combat suñu borom defal ko ndam Baye Fall la dafa ma lu tax suñu borom may ma ndam waaye ñaaree xare kenn am kenn ñàkk li ma am yàlla na gën ci man li mu am yàlla bu yàlla na doon defetam bu mujj Baye Fall la góor yàlla loolu laa la wax parce que ne yàlla làmb kenn du ko bërëtu ñëwagul li ngay def da koy def rek ndax yàlla mooy ñëpp te mooy may ñëpp yàlla lañ ñaan moo ñu may ñu yàlla bu baax tik tak la rek daf ma doon nax ma koy nax. Ah. xeex bi mu doon xeex gëmu ko woon. exemple waaw man xeex bi ma doon xeex gëm naa ko. yee mais day bëgg ma naaw ci kaw mu cokkaas ma su ko defee mën naa rek mu jaar ci suuf loolu la bëggoon. waaw moo tax ma ne ko loo muus muus sa goro gën laa muus. Mama Lamine foo jëm. fi ma jëm moom yow mii sax xam nga ko. yow fan la wax bàyyi naa leen lépp ngeen zéro wax ñu ko non maama la mu leen ko waxee di ngeen ko jottali mais da nga bëre say morom ah? rek say say Tyson 2 laa soxla enfin ah, Adama maa ngi taxaw kenn koo xamante ne mooy Mame Less Mame Less ku ko xam-xam ko ci écurie Parcelles mbooloo mu yor fa ay ndaanaan Moussa Dioum Yanda ak yeneen champion yi nga xamante ne ñu ngi foofu ak Franc Ibra Ngabou tey mm-hmm. euh, ñu lay nuyu euh, ñoo ngi leen di fay di fay waa Wassare xam nga kuy yot sur internet hmm. war koo wasaare ci réew mi hmm. la ngay wasaare doomu aadama yi koo ko tàllal war na laa déglu hmm. ñoo ngi leen di nuyu di nuyu sa caméraman bi ngeen àndal Mame Less dañuy xool chaque fois da ngay jël risque ci ay combat ba rawatina ci combat bi nga xamante ni moom moo xew tey muy diggante Mama Lamine ak Jokkel pourquoi nga jox maamalamil Lamine pour cent euh, nit ki boo xamee dayom xool ñaari athlètes yi nekk préparateur physique hmm. li ngay wax rek war na laa doy man dama am gëm-gëm soo bopp gëmuma benn mbër fi sama bopp laa gëm hmm. te yàgg naa ko wax doomu aadama yi eh, boo xoolee préparation yi xool ñaari mbër yi buñ summi hmm. boo doon teg sa xaalis ci jokkal nga koy teg ci ci Mama Lamine nga koy teg parce que état physique bi maam Mama Lamine indi sañ-sañ bi maam Mama Lamine indi te mbër mu amul sañ-sañ ci làmb doo gaawa a daan mbër boo bëggee dégg-dégg mbër da pare entraîner teel a tëdd boo sumee ko ñëpp xam ne pare nga. dëgg waaw boo gisee ma jox Mama Lamine pour cent jox Jokkal quarante pour cent. Hmm. Jokkal ñemewul Mama Lamine. loolu nga gis ci lamb la ko wax man moo feeñ. Hmm. xam nga lu ma càmbar depuis alxames la. Hmm. wax ko waa sunu lamb bi nga xam ne journaux la ñuy génne te waxoon naa ko ci ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ca atu mbër ma laa xool ak ca doye mbër ma ak ca mën a bëri mbër ma. moo may may li may sañ a wax. parce que nit du saax saaxee ko am boo nekkee xale bëgg yoon bëgg avancé il faut nga am sañ-sañ ñeme làmb gi ñeme géew Mama Lamine ñeme na géew ragalut bañ ko boolee buur siin ca arène nationale ba baat tontu la da koo waaxu indil ko safara indil ko xadar massacré ko mu dem yoonam ñu ñëwaat tey bu ko boole jokkal jokkal bu ko ñeme woon day ñëw indil ko jiyaat mm-hmm. mais daa xam ne bu indee jiyaat boobu du ko jig mu ne xaaral ma jébbalu wasaana wala wasaawut wasaana leer jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen kontaanee mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne moom lañ indil ci journée Ndiaye production nga xam ni moo dox ci diggante ñaari ndaanaan Maama Lamine ak maam a lamin ak Jokkel ki nga xamante ne mooy Maama Lamine daan Jokkel jël bu amul benn werante waaye li Maam Lees doon wax wax ji dafa mel ni dafa ñëw tey Adama Maam Lees dafa jëloon 60 pour cent jox ki nga xamante ne mooy Maama jox Jokkel 40 pour cent ñu ci bari ci làmb ne fu mu ko teg waaye dafa mel ni tey loolu confirmé wu na wanee na ko ci diggante Maama Lamine ak Jokal ndax man li ma gis mooy arbitre bi mu nee prip ndox du bàyyi yoonam Maama Lamine li mu waroon def moom la def arbitre def na prip mu dox ndànk ci kaw Jokal dox ci kawam dóor ko arrêt de gauche mu mu fayu mu xeex ak moom waaye Jokal dafa daw xeex bi te daa waroon xeex ba pare jàppante ki nga xamante ne mooy Maama Lamine waaye gis ngeen mbokk yi làmb noonu lay demee xale bii di Maama na preuve am ci làmb Maama fan la jëm xale mag yi nga xamante ne ñu ngi ci kaw ci làmb war nañ koo mën a tàllal loxo moom Mama Lamine nee na jeune 2 la soxla jaadu na Mama Lamine ku laaj ci làmb jaadu na pour ngeen bëree yéen ñaar ndax xale la boo xamante ne Langsar am na ci moom yaakaar Langsar am nañ ci moom euh, cër am na loo xamante ne représenté na ko Langsar mbokk yi noonu lañ leen di nuyoo di leen tàggu ci wasaare làmb ba ëllëg incha allah waaye kontaan nañ bu baax a baax a baax ci sëñ Basiru borom mbég meeg taar mi sama xarit bi nga xamante ni ma nga fee ci Zawal Fadiouth journée bi nga xamante ni Faata production moo ko tëgg waaye kenn du Ousin Diop doomu Aziz Diop bi mu nga xam ni ma macha allah mu ngi fee ci terrain Adrien Senghor mbokk yi lii ci wasaare lamb rek ngeen ko mën a amee culture ambiance ak lépp loo xamante ni neex na ay xale koy def te foo xale koy def Adama jaajëf.